Assalamu alaikum, Malum Maliba, fondatrice Kumbali Foundation. maa ngi dëkk. mën nga ñu expliquer lan mooy fondation.

bon fondation bi ay sëtu Coumbali ngi ci biir ay élèves institution Notre-Dame ngi ci biir ay élèves yenen école tamit ay morom day bon c'est vraiment des jeunes daal qui sont entre 15 ans jëm kaw ñoom ay participants ci fondation bi. ok la bii mooy deuxième édition. la première édition c'est-à-dire fan ngeen doon ngeen togué rek yag ngeen xalat né di ngeen wara def ce geste là. dañu xol daal ñu gis né ñun fi medina bëri na ay nit yo xamantene soxla nañ ko té ñom ñoo ñu wër. te nee na balaa ngay jàppale ku la yi nga jëkk jàppale ki la jege donc nañ njëkk dugg si ñu biir koñ yi ñu xool ñi nga xamante ne mën nañ leen jàppale ñu def ko parce que fi tamit soxla nañ ko. bi ngeen di commencé première édition bi ñaata kit ngeen amoon ñaata famille ngeen distribué. daaw ñu ngi defoon vingt cinq kits vingt cinq kits alimentaires lañ defoon ren ak moom ñu ngi sant yàlla parce que dem nañ ba cinquante def nañ double daaw bi donc sant yàlla bu baax. bu xam na xaalis dugg ci. Mhm. yéen xamnañ né duma né ma ne amu leen xaalis mais xamna né bu ngeen amé dessna fan ngeen di jëlé xaliss bi ngeen di def ci li bo xaliss bi participant ñi ñu nekk ci fondation kon nima ko waxé sànq dañuy cotiser chaque semaine ñeneen ñi tamé suñu papi yi suñu yaay yi ñëpp ngi ñi jappalé ñu ngi jox <laughs> ñepp ngi ñi jappalé ñepp ngi joxé ku ci am da yaa ngi joxe yaa ngi ñuy ci côté denrée bi ci côté tamé finance bi dal ak non dal lay démé ak t-shirt yi ñuy jaay comme soutien donc.

ban espoir ngeen am pour ko déwén seen seen bët ci fan la tegu pour que déwén ngeen mën ko def perspective déwén déwén moom ñu ngi ñaan yàlla génn Médina génn ko ñii ba ñëpp mën a xaj ci fondation bi daal que cinquante la ñuy def daaw ñu ngi naan ñu ngi ñaan déwén incha allah yëf yi gën a bëri mu raw sa ba ñëpp mën ci xaj daal ndax bëgg nañ jox ñëpp mais bi ko comme ni ñu ko waxee rek ay jeunes lañ suñu poche tamit diisul diis yooyu noonu ku bëgg bokk ci fondation bi nan lay Il y problème juste un da ngay juste message ci suñu numéro. numéro bi lan la. 77 177 71 82 wala nga ci 76 675. 31 10. y ci un message rek dinañ la bolé ci fondation bi ndax ñëpp la ñuy mu dugg ci catholique musulmane mak comme xale ngi ci euh, euh, participation pour mën ci non amul participation boo ci bokkee rek mën nga di ñu jox sa idée ndax ku joxe idée rek ak yéene bi rek mën nañ wax buñ boole nañ la ci suñu fondation ndax mën mën nga bëgg bokk ci fondation bi di joxe xaalis mais ñëpp duñ ko mën nga jox ñu nga jox ñu exemple nit bu ko soxla rek loolu dañ lay considérer ni bokk nga ci fondation bi ndax loolu yéene la te baax na tamit ci nit ni ñu wër les hommes politiques yi ñu wër par exemple suñu maire Bamba Fall di woo tamit peut-être li monsieur les ministres yi nga xamantene yaro nañ medina xam nañ medina parce que ñun mën nañ wax ay boy medina lañ te medina bi lañ yi gëna jappalé jàppale balaa ñuy génn ko ñi donc képp daal ko xamantene mën nga ñu jappalé rek ñu ngi lay wo di woo première dame di woo franchement ñëpp daal ku ñu mën jappalé rek ci ci le bienvenu ñu gis né vous êtes constitué des jeunes mais ay jigéen rek lañu gis est-ce que ay goor mën na ci bokk. waaw kay amna ay goor xamna naa seen temps moo leen ko mayu rek mais amna ay goor yu ci bokk yi ñuy jappalé aussi. C'est le moment aussi de faire un appel aux jeunes mhm. et de la diaspora nous aussi adhéré à la effectivement nous sommes nous avons nga on attend franchement l'aide de tout le monde surtout des jeunes parce que nous avons boo jeunes Nous avons jeunes aussi ñu am jom ñu Nous nous avons pour que ça soit dans des racines.

c'est pas waruñu les filles pas di nous suñu xaalisu parents yi di yàq di def ci cela amna ay nit yu nañ ko on doit vraiment les aider donc j'invite tout le monde à essayer de faire comme nous et l'appétit vient en mangeant quoi tout se commence petit à petit après ça va venir c'est on remercie tout le monde et je remercie aussi tous les gens qui sont autour de moi ñi xamantene xamante nañ soutenir nañ ma côté financièrement et tout et même moralement bon je remercie vraiment tout le monde et je demande aux gens de venir nous aider à aider.